pour un homme politique qui aspire à diriger ce pays. quand il dit magistrats yi xam nañ fi ngeen fi ngeen fi ngeen dëkk cest à dafa am des types de déclaration lu yoo xam ne euh, Moustapha Sarré wala <laughs> Ousseynou lii mën na koo wax mais waruñu ko xaar euh, d'un de de quelqu'un comme Ousmane Sonko Ousmane Sonko parce que magistrat yooyu xëy na moom bu bu fal woon tey moom mooy nekk seen patron dans l'histoire politique du Sénégal ah. est que mës nga gis un homme politique qui a subi autant de pression dans sa vie. Ablaye Wade am Ablaye Ablaye Wade Ousmane Sonko <laughs> man je le dis. li mu daj mu ko daj je le et je le li Idrissa Seck li mu daj et avec Macky Sall. waaw mais est-ce que mën nga mais dinaa la wax lan la dinaa la wax lan la Ousmane Sonko ah pour nga xam ni li mu daj genn wàll gi Ablaye Wade daju ko. ah si Idrissa Seck daju ko. ah Ablaye Wade xam nga lu tax Ablaye. Ousmane xam nga li gën a bon ci ci non xam lu tax mënoo takkale xam nga lu tax mënoo takkale Ousmane Sonko ak Ablaye Wade. Mhm. Ablaye Wade dafa ñëw dans une période sombre ñu nekkoon ci guddi gu lëndëmagul tey amuñu woon cet cet cet espace démocratique Ablaye wàdd nekk ci nekk ceeg sengoor pare ceeg Senghor nekk ceek ab Abdou Diouf te Ablaye wàdd ba tey mu ngi ci coono yooyu. Abdoulaye Wade donc moo bu leen arrêtez de comparer Abdoulaye Wade ak Ousmane <laughs> Sonko. gis nga ni nga bëggee Abdoulaye Wade noonu laa ko bëggee. non non man du question bëgg non attends moi je sais que y a non non am nga. arrêtez de comparer Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko gis ah. il a eu la chance d'avoir en face de lui des des des hommes d'État Senghor était un homme d'État a eu la chance d'avoir en face de lui un démocrate Abdoulaye Wade. la malchance de de Ousmane Sonko c'est d'avoir en face de lui quelqu'un qui n'est pas que je ne considère pas comme un homme d'État moi je considère que makki Sall est tout sauf un homme d'État et tout sauf un démocrate parce que xoolal li mu li mu teg depuis bi mu nekkee président de la République en 2012 il a été le seul président de la République boo xam ne cotisé wul ci démocratie Sénégal nous avons eu quatre présidents successivement ñoom ñëpp ku ci nekk am nga loo cotiser ci démocratie Senghor nous a valu un multipartisme au moment où en Afrique on ne parlait que de parti unique en 74 il a fait il a il a instauré le multipartisme même si c'était un multipartisme limité il nous a valu une démission volontaire à la tête de l'État au moment où kenn mësu ko xalaat en Afrique da ngay dañ lay coup d'État rey la wala ñu jàpp la nga génn ci pouvoir bi en ce moment là Senghor a démissionné volontairement Abdou Diouf il nous a valu une un multipartisme intégral en 1981 quand il est arrivé il nous a également valu un code électoral même su fekkante ni daf ko daf ko defaraat parce que moom moo détérioré woon code électoral bi en 81 mais moom moo defaraat code électoral boo xam ni moo ñu permettre ñu am deux alternances successives Abdoulaye wadd il a également approfondi la démocratie avec l'explosion le boom médiatique avant Ablaye Wade yéen yéen ñëpp kenn existé wu ci woon il n'y avait qu'une télévision à part télé euh, RDV bi xaw ma Ablaye Wade bi mu ñëwee y a y a eu boom médiatique. moo tax kenn mënul tëkkale Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko non attends non te Abdoulaye Wade moo tax Ousmane Sonko yow da ngay wax ñaar deux choses différentes da ngay wax ñaari choses yu wutee ñetti ñëpp. ku ci nekk am nga loo cotiser ci démocratie bi Macky Sall lan la cotiser ci démocratie bi absolument rien il a il a fait reculer ce pays démocratiquement comme on l'a jamais on on l'a jamais pensé voilà quelqu'un boo xam ne mais mu bëgg a nekk président de la république ba pare ne doo am wujj cest à yow doo am adversaire politique il a commencé par Karim Wade delloo si waat fi encore une une, une cour boo xam ne kenn mënu ko imaginer dans une république normale la CREI xam naa ni le juriste il va il va il nous en parler tout de suite CREI kan moo ko mën a xalaat dans une république dans un dans une démocratie l'inversion de la charge de la preuve loolu kenn mënu ko imaginer dans une démocratie ñu ne déet na waaye mu indi fi Khalifa Sall Khalifa Sall nekk adversaire am mais mu attaqué ko de façon extraordinaire accélérer son son d'ailleurs <laughs> xam naa certainement ci accélérer dossier Ousmane Sonko yi la ñu jëm accélérer ko mais nit ñi mënuñu comprendre naka la def ba éliminer ces deux euh, euh, Khalifa Sall ci ci course à l'élection présidentielle ñu ne déet na waaye waay son ko taxaw mais mu ne ko doo fi nekk yow mënoo du ma jàkkaarloog yow mais kooku nag lan la indi ci démocratie Sénégal. alors Sare. ba pare indi fi ay débat yoo xam ne ay troisième mandat. gis nga dama ni Ablaye Wade a eu la chance d'avoir en face de lui Senghor et Abdou Diouf qui étaient des démocrates dans une certaine mesure quand même Idrissa Seck a eu la chance d'avoir en face de lui Ablaye Wade nous Pastef Ousmane Sonko a eu la malchance d'avoir en face de lui un gars un, préféré une démocratie sans tache mais malgré toutes ces toutes ces malgré toutes ces dérives mhm. le Sénégal n'en reste pas moins une démocratie yaa ngi wax sa xalaat maa ngi wax sama xalaat su ma paree ah, émission non xaaral xalaat su ma paree émission xalaatuma ñu jël si ma au Congo un chef de l'opposition ñemewul taxaw ne le président sa bakkan la wala sama bakkan te étape boo toll boo duggee ci ci nguuru Senghor xaaral rek boo duggee ci nguuru Senghor mhm. gis nga yi nga wax nii mhm. di nga ko fa trouver et c'est pas pour légitimer ça boo ñëwee ci période Abdou Diouf Abdoulaye Wade élection da daan jot ñu buure urne yi ngoon gi ñu jàpp Abdoulaye Wade yóbbu kaso du sax am des chefs d'inculpation nga ñëw ci nguuru Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade a empêché quatre fois la prison Abdoulaye Wade ah Abdoulaye Wade il a fait quatre la prison sous Diouf sous Abdoulaye Wade y a eu des dérives démocratiques sous Macky Sall y a des dérives mais taxaw ci loolu pour ne le Sénégal est une dictature euh, je pense que le constat est exagéré le Sénégal n'en reste pas moins une grande démocratie Maïmouna comment peux-tu comprendre dans un pays démocratique une seule formation politique ñu jël cinq cent nitam dugal leen ci kaso cinq cent aujourd'hui Pastef am na lu mat juróomi téeméeri nit ñu nekk ci kaso wala ñu nekk sous contrôle judiciaire naka nga ko mën a expliquer loolu démocratie la naka nga mën a expliquer c'est une dérive il ne fait que des c'est une dérive le bu fekkee ne xam nga lan laa fan laa d'accordul ak yow bu fekkee ne on n'a le reprocher xam nga fu ma d'accordul ak yow li ngay wax ne Sénégal fii démocratie la parce que lu neex waaye yow bu la lu la neex nga waax boo demee Congo le Sénégal a toujours été un pays boo xam ne démocratie bi nit ñi dañ dañ dañ koo fonk des gens sont morts pour que démocratie am ci réew mi des gens am na ñoo xam ne dañu seen adduna pour démocratie am ci réew mi bul fàtte ni Sénégal depuis le dix-neuvième siècle ñu ngi voté bul fàtte ni Sénégal moo njëkk yóbbu député Palais Bourbon waxuma je parle même pas de Blaise Diagne le territoire sénégalais moo njëkk a yóbbu pendant plusieurs dizaines d'années avant que beneen pays africain di mën a jël un député di ko yóbbu palais Bourbon. donc la victime démocratique est Sénégal le Sénégal moo njëkk a le Sénégal moo njëkk a taxawal multipartisme en Afrique le Sénégal moo fi njëkk def alternance kooku nag Macky Sall dina ñëw fii. et au prix de de la vie de beaucoup de personne ñu xeex ba démocratie am fi mais Macky Sall dina fi ñëw rek ne ne cundum taxaw rek. ne day tëj gémmiñu nit ñi. mais mënul nekk c'est pas possible